loolu la ñoo xam ne ñun mën nañ ko baale waaye nag waaye nag boo doxee ba ñu lay xeex ay at jël li ñu amoon ci mooy yëpp daalal ko sa kaw dii leen la yàq sa liggéey dugg sa vie privée essayer tas sa kër toj say oto dóor lay lacrymogène tëj la kaso loolu yëpp ñu def la ko te jamono ji ngay ne opposition nga ànd ak muñ jiital yàlla ba yàlla jox la ndam jaaree ko ci Sénégal yi xanaa tey ku am xel tuuti nga ne nag léegi naa teggi sama tànk waaye dafa mel ni suñu yi jàpp nañ ni mën nañu continuer di xëy di saaga di sosal di wax lu bon ci nit ñi ba pare toog tranquillement seen kër ma bëgg a leeral Sénégalais yi lenn ñun suñu responsabilité en tant que ñu yor nguur te président Bassirou Diomaye Faye jiitu ci mooy réew mi il faut ñu delloo ko fi mu newoon réew mi xamuñu woon lii de bañante enante di wax lu bon ci nit suba ngoon parce que rek andu leen ci politique yéen lépp dégg ngeen samay discours yàgg naa leen wax ni ku fiy wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa mu sa wax yàgg naa ne samay vidéo naan leen bàyyi leen lii bàyyi leen lële Pastef musul yónni nit ci saaga wala xaste wala tiiñal wala di sasal nit ñi ko doon def gis nañ leen parce que bañ dañu jàppee ki koy def ñoom ñëpp génn nañ dem commissariat ne dañuy dem jàppale ko est ce que mos nañ jàpp nit bu ñu ne dafa bokk ci Pastef ci ay saaga soo Sonko dem fa wala mu wax ci mosula am kon may wax ñëpp nag suñu responsabilité en tant que état mooy réew mi ci ma ne mooy suñu royukaay ci weer wi ñu toll weer wi ñu tollu muy weeru tabaski ci la def tàggatoom discours tàggatoom li gën a fas ci discours bi mooy seen alal seen deret ak seen orma araam na seen diggante ci weer bii la ko waxoon deret yi nit réputation nit vie privée nit loolu lu araam la nañ ko sàmmalante kenn ku nekk moroomam politique débat d'idée la contradiction d'idée la ku mu neex nga ne d'accord ma ci seen politique u mbay nii d'accord ma ci seen politique càmm bi d'accord ma ci li ngeen def ci ressource naturelle bi éducation bi ñu toog débat problème amu ci mais xëy rek ubbi sa internet di saaga nit loolu duñ ci am tolérance ak kenn à commencer par waa Pastef yéen ñii seen bopp duñ ci am tolérance kon barki démb semaine passée ministre la justice man la envoyé vidéo ne ma kii ci Pastef la bokk te mu ngay menacer magistrat dama koy monsieur le ministre defal sa liggéey ñun néew ñu fi di xool kumba am day ak kumba amul day ndax loolu lañ doon xeex jëm di ñëw tey di ko dëggal kon fi ñu toll nii soxlawuñu saagakat soxlawuñu xulookat xam nga li ñu soxla liggéeykat jublu ci liggéey bi rek te dinaa ci ñëw ci deuxième partie bi may wax loolu ñu ko kenn ku nekk noonu lañ ko bañee ci kenn kuy wootewu moo xam dangay ngay bind moo xam da nga yor tere kuy wooteel journaliste jeex na ci réew mi jeex na tak dem leen ngeen lire code de la presse article 13 ko moo tax ay waxu ñàkk fu la ñu ñu woo la ne la fan nga jëlee nekk Delaware jeex na ci réew sàccee xaalis su Sonko reyee nit su Sonko defee naka su dul noonu journaliste bi ci am preuve loolu mooy liggéeyam waaye toog rek ne Sonko neexuma wala jox nañ ma xaalis wala jomaay neex